waaw jërëjëf euh, soxna Idia macha allah ñu santaat la bu baax gërëm la ci liggéey bi ñaanal la baax soxna Mame Bousso euh, félicité waat baax soxna may fi jaar ak. juróom yi nga xam ni ñiñ ko jiiñ mhm. ñëpp ñiñ ko nit a ko ah juróom yi <laughs> dañu am aha juróom yi yoo xam ne ko jiñ mm-hmm. yeyoo <laughs> am li nga wax dafa am solo il faut nga xaar tuuti ndax da ne juróom yoo xam ne ñiñ ko jiñ ñiñ ko jim yeyoowuñ ko mooy ñi ko yeyoo suñu am yaa ngi wax lu am solo loo xam ne du mat a bàyyi xel juróom yoo xam ne ñu ngi koy jiim ñu ngi ko jiim yeyoowuñ ko ñu ko jiim ñu ngi ko jiiñ jiiñ jiiñ juróom yoo xam ne. Mhm. Ah. ñu ñu ko jiñ sëñ Moussa Ba sëñ am daf ne juróom yoo xam ne ñu ñu ko jiñ yayowuñ ko sëñ am man dégg naa wolof nag bàyyi may def juróom juróom nag mooy mooy seen ci ñi ko xamul ah, sëñ am sëñ Moussa Ba parce que gis ko am juróomi mbir la la bëgg wax juróomi mbir yoo xam ne ñiñ ko jiiñ yeeyuñ ko nit a ko yeeyoo juróomi mbir. juróomi mbir mais nag si misaal foofu naa taxaw pour xale yi. liggéey nu mbaam. parfois du loolu liggéey nu yegseegul non bul joxe bii te ñëwagul. Ah. mais problème bi mooy si misaal loolu lu ma ci bëgg lu ma ci bëgg indi mooy parfois da ngay gis ci réew mi la dëkk. Hmm. juddoo fi yaroo fi màggee fi ba pare. te mënoo dégg wolof loolu tamit monsieur Moussa loolu la gàcce la nag. ah man dégg naa wolof de. maa loolu gàcce la parce que ñun dafa mel ni dañu gën a favoriser loo xamante ne du suñu mbir comme. français beeg anglais beeg yooyu te nag noonu ñu maîtriser français bi war nañ ko mën a maîtriser suñu wolof gi nag. lu tax. comme sëñ ndax dégg naa ci suñu Aliou mu ne. dem na ci pays yu bari waaye moom. zarif rek la la xam ci français zarif bi kon kooku mi ngi lay wan ni tamit mi ngi wan ni tamit moom mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi li mu nekk muy saalum saalum bi mu nekk originalité bi ay waxam sax da ko ci sentir moo tax wax ji di neex di xorom suñu am nga daal yeggale. xam nga xam nga li tax Sénégalais di dañu am ñoo xam sax di perte seen culture moo tax ñu lëj da yor téléphone u Tecno chargeur Samsung écouteur u euh, beneen téléphone mu tuddati nga xam ne yow li nga yor nii kenn ku ci war a ànd amut waaw seetlu li ma la wax Ndeye Ndiaye écouteur yee mu yor ci Tecno lay dem Paama téléphone bee mu yor mm-hmm. ak chargeur ba bokkul wax nga dëgg fi ne moo tax am na chargeur boo xam ba ñu noppalee sax dañ ko tudd bamba fépp bamba fépp boo leen doon làkkaloo wolof danañ ci rax anglais pulaar français wolof alors que yow làkkoo plus xam nga foofu la sunu waa ji dominé ñëpp sëñ Touba bi mu defee sept ans sept mois bi mu ñibbisee wolof yi sax changé wul boo taxawee aéroport ki jóge Arabie Saoudite di nga xam ne Arabie Saoudite la jóge parce que jàllaa bi lay sol te loo wax mu ne yaa ngi ah, oh. ki jóge Amérique bu wàccee loo wax ne mu ne nuñ koy waxee you know maanaam dana fax dana fexe ba làkk wan leen ni man maanaam waaw lii laa jógee lii laa jëlee Amérique ki jógee France ak noonu <laughs> loolu loolu loolu loolu nit ñi da ngay xam kon ni ñi am na loo xam ñu ngi perte parce que tey des fois nga dégg nit wax waxtu olof boo xam ne bi doo xam li mu bëgg a wax lan la mm-hmm. mais si am hein, loolu gisoo ci complexe parce que da ngay gis exemple ku nekk Sénégal fii da ngay def trois mois France commencé de rouler R ñu naan la borom France ma moom la la France yow xanaa gis comme benn États-Unis amoon na temps yoo xam ne am na benn blouson boo xam bu ñu daan bu Aku daan wax dégraisseur dégraisseur waaw xewoon na fi <laughs> am na boo xam ne su Opel lañ daan bind ci ginnaaw nii nga xam ne boo wàccee soo jógee Italie waaw dañuy xam ne kii moom Italie Italie la jógee temps tàngaar sa gars yi dañ daan sol dañ daan sol diir kay boobu ay wat dafi ne boobu gars yi tukki xewagut nii da ngay gis sa su moodu moodu bi ni nga koy xamee mooy blouson bi mu sol Opel bi macha allah sama grand bi ñëw na ñu ne Opel moom donc bu dee ki jóge France seen or bu sew la daan takk nii maanaam dafa am yu leen daan ah, différencier ah, waaw ñu jóge Amérique Timberline lañ xewal Timberline waaw ak jëngal yi su ko defee da ngay daal di xam fa nga jóge ah, euh, baat yi nga xam ne nii ñiñ ko jiiñ baaxul ci ñoom waaye ci nit la gën mooy jub mooy way teey wér ak mat ak mat jub jub awyoon lañ ko jiiñ aw yoon lañ ko ji. waaye ci nit la gën. wër na. am ndox way. way soow lañ ko ji. waaye ci nit la gën. wër na. teey. teey am ndox lañ ko jiiñ waaye ci nit la gën. wallaay wér. ab góom lañ ko jiiñ mm-hmm. waaye ci nit la gën. Mm-hmm. mat nag xarum tabaski lañ ko jiiñ waaye ci nit la gën. wallaay wallaay sëñ am man daa sëñ am daa chaque jour daal ak fa muy génn. benn bi ah, soxna may daa waroon wax am am am ñetti junni. soxna waroon day nit ma génne seen man man ji quoi. tey tey tey ñëpp am da am solo da nga wax lu am solo. sëñ ngi jàngale ko wolof de. waaw waaye jàng de. dafa am solo. Eh, soxna may doo leen expliquer suñu kuuru wolof ci kaw. ay. sëñ Moussa ci kaw. gis nga sëñ am. li nga wax am ji mu am solo mooy. danga ne tey dañ ko taamu ci ndox. dañ ko ji ndox. waaye ci nit la gën a jege da gis ni tey li mu mën a indil nit ki du ko yàqal. ndax nit yàq na yàqule na loo xam ne ñàkk dalam. ñàkk teyam moo tax mu yàq. moo tax mu ñàkk ko. jubit mu nekk lu am solo. ndax nit ci domaine boo yëngu bu nekk rek war nga ci wane am jub. comme ni ko PM indee jub jubanti maanaam ci bëri jub jubal jubbanti jubbanti comme ni nga ko waxee en mhm. ah, soxna may mhm. mu nekk loo xam ne lu am am solo la waaye waaye ñetti baat yi ñetti yi ci gën a neex waaw woy ak mat ak ak ak wér waaw wér ñetti yi mhm. lu nit ñàkk ñàkk na ko am wér na xam nga lan mooy way xanaa xam ne ma ngi bu ñu la daan xas dañ naan kii ni mu waye de bu ñu la nee day daa waye de rek yow xas nañ la dëgg la mooy yow yow yow yow yow yow surface bi nga war a dund génn nga ko sa crédibilité dem na yaa ngi feneen léegi dëgg la dañuy wax ne xëy way maanaam dëkk ci dëkk xew fa ba xëy xewee fa wëlbatiku dëkkaat fa mhm. maam da ngay wayadi da ngay wayadi waaw buñ daan fekk nit magum jëmm di fay di ay xale def ay kii dañ naan kii yow yaa wayadi xale yi nga xam ne naan mhm, mhm. nga joteeg koo xam ne ni yaa ko ëpp lépp yow yaa wayadi kii ngay topp maanaam wayadi benn baat la boo xam ne bu ñu ko xëy nit aw xas la dëgg la waaye dafa am solo par exemple mës naa koo wax fii ci réunion bi bëgguma wax ci kaw am na baat bu ñuy wax téegal. téegal waaw téegal dama koy dégg. koo wax ne xaaral ma ñëw téegal nangamam. Mhm. pour moom da nga koo saaga. waaw te téegal du saaga. du saaga. loolu moom dinaa si ñëw sax dama lay bàyyi. am solo loolu damay gis <laughs> euh, loolu damay gis suñu am suñu am loolu damay gis euh, euh, suñ kii ndaw surtout maam Cheikh Ndaw bi. waaw meeg ci toog damay faral di gis euh, Baye Cheikh Ndaw waaw Baye Ndaw am na sëtam bu tudd Baye Cheikh Ndaw xam naa ko waaw day nekk ci TikTok bi mais da ci wax yu am solo parfois mu wax ne ñu ne li na ko waxee kon loolu soxna May lu am am solo li mu indi nii lu am lu am lu am solo la surtout surtout surtout surtout surtout way way way dafa am solo dafa am solo parce que nit ku nekk dafa am li nga war a nekk loo xamante ne nii ku la si fekk daf lay naw ku la si fekk daf lay respecté du coup yooyu yëpp boo ko dajalee loolu mooy li nga xamante ne nii da nga way parce que nit ak ku mënti nekk rek góor comme jigéen mag comme ndaw da nga war a am personnalité mhm. am na yenn milieu yoo xam ne suñ la fa woowul uti fa dara na nekk ku la jege na nekk ku la xam na nekk ku sori si yow mais tant que woowoo ma diw man dama la soxla fii yow passe l'éponge nga jàll si leneen mhm. bu la yëgee wala mu def la comme boppam xëy na dina la wax nga ñëw toog bu fekkente ne mhm. personnalité boobu nit manqué na ko rek mooy waral sax ñu woowuñu la fenn nga dem fa da ngay wàññi sa personnalité ñak sa personnalité donc mu nek lo xamantene ni da fay am solo bu fekente ne dañ la wax tamit nga dal lepp lo gis dal daf si am solo dal ak té yépp dañ si am solo parce que su fekente ne né par exemple man ñëw na fek ngeen tok seen togaay bu bu bu macha allah ma ñëw di cëppi cëppi wala may rëpp rëpp ki doye di ki man lañ koy jappé parce que yeen ma ngi leen fek seen zone de confort ngeen tok tranquille man ma ñëw di def lo xamantene ni nii waruma ko def kon bu ñuy seppi ñi nga xamantene ni seen do wala daluñu man dañ ma yóbbaale dañ may dañ ma si boole mu nekk ay yoo xamante ne dañ ko mat aussi c'est vrai que ni comme li mu wax xaru tabaski lañ naan xar mu mat tabaski mm-hmm. alors que nit tamit dafa war a mm-hmm. mat mm-hmm. te mat boobu yëpp dafay duggaat ci crédibilité nit ki dignité nit ki parce que ki mat am na yoo xamante ne lépp lu jëm ci matadi yow doo ko def donc soxna Sidia macha allah soxna May comme ni nga ko wax